റമദാനാങ്കി വെറുയറുമാൻ്റെ റമദാനാങ്കി വെറും ജഗലേ റമദാനാങ്കി ആഹാ വെറുയറുമാൻ്റെ റമദാനാങ്കി വെറും ജെ sàggan du ci am ramadaana ngi weeru yërmande ramadaana ngi loolu moom dëgg la waaw ah, loolu moom dëgg la moom jaaxle taayam dafa bëri ay tumba xóor ak barbaajoo kenn xamul ku ñëw bokk ku ñëw bokk defoon li ngeen war a def est-ce que jamaa ji di nekk di lijjanti problème am nam amul lan la war a def man ngeen waroon a def da ngaa xam dara xanaa ko xam dara lañ sori jàng naa 27 kaamil 27 kaamil barki alxuraanil ka dama jàng bay bëgg a man dama jàng ba boo bu ñu falee bu mën fen ngay doon déglu ma lu tax wax ñu loolu li bëgg wax mooy tey tey li tax ñu daje fi mooy nañu wax ci wàllum koor gi te dégg naa nga tey dafa saytaane bàyyi leen di fàttali affaire de koor koor koor la mu tànk ngeen koy fàttali ko bàyyi jumaa ji tëj nañ ko koor gi dañ koy tëjaale dañ leen seen kër te dañuy woor ci dëkk bu ñuy wax Méoul mbokk mu ñuy wax Omar Dieng di doomi boroom dëkk ba gis na ko. ñàkk jom dong la def nañ ko jàpp ne mbéb ko yóbbu hôpital ñu piquer ko mu soo mu ah, ñàkk jom dong la def jàpp rek Ramadan a ngi weeru yërmande Ramadan a ngi gi mu àndal ku sàggan du ci